Human Resources Advising est une start-up créée en 2021 qui vous accompagne où que vous soyez et vous conseille dans votre développement personnel et professionnel. Nous vous accompagnons également dans la matérialisation de vos idées. Nous réunissons notre savoir-faire RH et juridique pour le développement de vos projets professionnels et personnels. Nos services. Définition de carrière professionnelle, accompagnement à la recherche d'emploi, alternance et stage, accompagnement aux entretiens professionnels, conseil et réorientation d'études, mobilité internationale, notamment vers la France, coaching et développement personnel. Ensemble, nous créons votre identité de marque avec la déclinaison d'une vidéo de lancement, un logo, des packshots, des bannières réseaux sociaux, des supports de communication ainsi que des cartes de visite. Nos valeurs. Écoute, conseil, réalisation. Avec Human Resources Advising, on vous garantit un accompagnement RH de proximité. salaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci sunu gaal ca kanam su ngeen fàttalikoo dafa am playlist bu may bu may nekk di animé bu tudd talent diaspora l'idée ci playlist boobu mooy dañuy dem rencontrer sénégalais yi nga xamante ne dañu nekk un peu partout ci diaspora bi ñi nga xamante ne dañu am ay domaine de compétence wane seen ay talent pour que ñu mën a nekk ay référence mën a nekk ay modèle pour ndaw ñi nga xamante ne certainement ñu ngi ci Sénégal ak ñenn ñoo xam ne ñu ngi fii si ci Europe ci Marseille tey Marseille laa ñëw nekk benn ville bu mythique mu ñëw rencontrer le docteur Martin Carvalho su ngeen fàttalikoo def nañ benn contenu en français dina leen defal lien bi léegi nii di ngeen mën di ko jot ngeen seetaan ko après ngeen ñëw fekk ñu si contenu bi nga xam ne tey ñu ngi ciy waxtaanee docteur maa ngi lay ziar. dellu ziar. di la di la remercier si lu ma dalal ci Marseille. non fii Marseille moom ñëpp la ñuy dalal moom fii Marseille terre diaspora bi fii ñun ñoo ko moom. ñu nekk ci vieux port. waaw soo doon wax vieux port mu nekk endroit bu mythique. pour déjà africains yi ak pour nit ku ñuul d' abord sénégalais en particulier waaw dëgg la parce que fii moom vieux port moom xam nga Marseille moom boo xoolee bu baax ci historique histoire am euh, grec yi ñoo ko fi samp. waaw droit bi grec yi ñoo ko fi samp il y a plus de 2600 ans Marseille Massilia la doon après léegi tubaab bi tuddee ko Marseille parce que effectivement grec yi ñoo fi ñëwoon. gis nu mu demee donc ñëw léegi sanc fi euh, ville bi. donc xam nga rek géej mooy indi lépp. donc ñun mii tamit suñu maam yi ah ci géej bi nañ jaar parce que à l'époque <laughs> avions yi moom ah amuñu woon moyen pour ñëw donc ci géej gi nañ jaar à l'époque de la guerre aussi donc moo tax bu ñu ci yegsee bon ñu am fii déjà. ay euh, ñu koy waxee am na ñu fi woon ay marin yoo xam ne ay sénégalais yoo xam ne ñoo nekkoon nañ fi marché wala Toulon am ñu nekk ay docker ay docker tamit d'accord te Ousmane Sembène di ko wax yaakaar naa ci benn téere voilà ci benn <laughs> téere effectivement et donc ce qui fait que Marseille daal endroit bu mythique la et xam nga nag lu ubbi ci ubbeewu ubbeeku ci géej rek ba foog ñu am ñoo xam ne dañ mun munti ñëw parce que géej moom day indi lu bëri d'accord te comme ci moyen de transport boo xam ne ci njëlbeen moom rek moo fi nañ fi amoon balaa roplaan yi di yegsi donc ce qui fait que moo tax euh, suñu maam yi mun a profiter ñu yegg si fii installé wu fi yàgg nañu fi installé terroir sénégalais yi sax tamit bu ñu fi ñëwee fii même chose boo xoolee tey Notre-Dame de la Garde boo foo yéegee. am na impact de balle yoo xam ne. tirailleurs sénégalais ñoo ko ñoo défendre fii. Euh, moo tax la France moo tax allemand yi jàppuñu ñu yéeg ci point stratégique bële bi euh, point bu bu gën a culminant fii ci Marseille mooy Notre-Dame de la Garde tirailleurs sénégal yi suñu maam yi ñoom ñoo ñoom ñoo défendre ville bi fii donc moo tax fii moom dama ne bon voilà boo waree wax fii ban ani marché typique véritablement dañ ko fii ràññ de <laughs> dañ ko fii ràññ fii daal moom ñëpp a fi dëkk ñëpp fi moom wala am nga fi ay corse ay italien lu nekk am na fi ñun nag moom ah ñun tamit euh, ci nañ bokk parce que ñun tamit euh, fii nañ sancoo voilà mais mais docteur loolu moo tax ma jugee ba Lyon ma ñëw fekk si la fi ndax da nekk talent fi si Marseille may fàttali ne. docteur nga déjà médecin nga. est-ce que mën nga ma wax un peu sa sa jaar jaar ak. ak lan nga man man sama jaar jaar bon effectivement docteur laa mais man sama jàng sama jàngat yëpp Sénégal laa ko jàngee ah. ah. ouais donc euh, fa laa fa commencé ba dal ba sam samay thèse. après nag bu ma yeggee ba troisième année spécialité gynécologie laa ñëw fii. Ah. pour jàng euh, benn spécialité bu ñuy wax euh, endocrinologie mooy affaire hormone. donc endocrinologie spécialité hormone la mais finalement nit yi diabète rek la ñu xam. Ah, waaw voilà diabète moo ci gën a moo ci gën a law ko mais dinañ faj ay affaire thyroïde ay affaire jigéen tamit affaire ay affaire góor donc euh, ay ay pathologie yu bari daal. am na ci am na ci. mais nag ñun mi ah bon euh, même suñu patients yi jabet yi ñoo gën bëri. waaw ah. diabétiques yi ñoo gën bëri. même ci àdduna bi yëpp jabet moo gën bëri. moo tax suñu spécialité noonu ñu gën koo xam ci loolu boo waxee endocrinologie. déjà dafay metti pour nga dégg sax wala comprendre lan la mais donc léegi nit yi nañu ne bon diabète kii di fay faj jabet mais du diabète rek mooy nañuy faj bon effectivement dëgg la bon léegi fii moom xaw naa fi yàgg ça fait 34 ans maa ngi fi donc nit nag xam nga foo yàggee fenn foog nit yi effectivement ràññee la ci surtout soo nekkee euh, ni nga ko waxee dar bu ñuul da ngay fii def liggéey boo xam ne am na solo foog ñu comme commencé la xool di la gëstu et noonu laa effectivement nit yi euh, bëggee ma fii parce que sama patient yi ñoo ma koy wax parce que suñ ma ko waxuloon du ma ko xam te pour ma xam ko tamit ah su ma suñ ma bañoon yaakaar naa du ma fi toog pendant période boobu yëpp installé depuis plus de vingt ans dans mon dans mes différents cabinets privés j'ai été à l'hôpital pendant dix ans mais après bon moo xool mën naa liggéeyal suñu bopp donc moo tax ma installé wu ci sama cabinet yi fii à Marseille. Ah. d'accord ah, voilà. suñ doon ñëw pour nga wax ma si lan nga lan nga jaar ci jàng avant nga ñëw Marseille d'abord su ma comprendre Sénégal nga commencé jàngee. waaw Sénégal laa commencé jàngee donc euh, def sama étude yëpp donc faculté de médecine e ma def sama thèse en 86. waaw fekk maa ngi woon tamit euh, doon def en même temps sama spécialité gynécologie. bu ma yeggee ba troisième année de gynécologie nag ah. foofu laa ne wërsëg nag dama ko am parce que sama nijaay moo doon chef de service gynécologie bi donc léegi dama ko ne man daal gis nga ay césarienne ak yooyu man bon jàngal nga ma loolu xam naa ko mais man lu ma gënoon intéressé mooy hormones yi quoi xam nga jigéen bi nu yan lan lay hormones yi lan lay lan lay sécréter comme hormone ak yooyu man loolu moom ma intéressé woon donc léegi mu ne ma kan yow nag yow moom que léegi nag moom xanaa nga dem defi def dem def endocrinologie loolu mooy hormone donc xëy na da nga juum ki sa choi mais yaakaar naa foog nga dem def endocrinologie. d'accord ma ne ko non du juumte mais c'est que ma orientation léegi laa bëgg a changer donc ce qui fait que noonu laa mujjee ñëw nii euh, Marseille Marseille nag waruma woon ñu Marseille <laughs> dëggante. dëggante dëggante normalement Charlottesville laa amoon euh, euh, bourse aux États-Unis mais bon bourse au Sénégal <laughs> à l'époque yaakaar naa su ma jëloon sama appartement su ma jëloon sama chambre universitaire moom. yaakaar naa après du ma añ du ma nekk du ma reer <laughs> donc comme suma suma suma ni ñu koy waxee sama mag fi la newoon Marseille damoon naa fi benn tante ma ne ah su ma jëlee chambre su ma xiifee wala su ma maree mun naa dem gisuma tante ma lekk wala ma dem gisuma frère ma lekk loolu moo tax ma ñëw Marseille. d'accord voilà choix boobu moom moo taxoon ma ñëwoon Marseille donc nag yàlla nag ah wërsëgal ma fi lu bëri. donc moo tax depuis lors daal maa ngi fi depuis 87 maa ngi fii Marseille. depuis 87 waaw mais la moo tax jugee woo Marseille gi ci beneen non par exemple jugee Bordeaux dem jàngi feneen. non non non la famille. y' avait famille bi et finalement bon Marseille fii moom boo fi nekk dafa me ni nga nekk Sénégal quoi dafa am ci le soleil tu vois. et yaa ngi Sénégal boo jëlee vol. ah non sori woo ma Sénégal moo tax du ma du ma du ma du ma doon du ma doon sori Sénégal ah naa fa doon dem ñaar wala ñetti yoon par an quand j' étais Donc ce qui fait que vraiment, euh, vraiment je retrouvais un peu cet euh, atmosphère, cette, atmosphère, environnement, environnement d'accord Même un peu plus policé qu'au Sénégal, mais dans un cadre où on retrouvait effectivement beaucoup de, de, de Maghrébins, de Comoriens, d'Africains, de Français. Donc ce qui fait que, manal, atmosphère beaucoup de manière. Donc ce qui fait que, bon, et puis nous avons fait un tamit, am wolo bu ñu am ci man donc looy xam looy changé boo xam ne nit boo xam ne il t'accueille bien et finalement ça se passe bien yombuloon nag de dama ñëw kenn kenn la ma tapis rouge de. et puis jàngu médecine déjà dafa metti. dëgg la mais nag ah góorgóorlu rek ak sant yàlla. waaw góorgóorlu ak sant la mu nekkoon outil yi nga xamante ne bi nga jógee Sénégal moo la permettre nga ñëw ci réew boo xamante ne commencé goo jàng fi médecine mu nekk réew boo xamante ne du sa cosaan du sa aada du sa civilisation nga ñëw intégré wu ci. la moo nekkoon outil yi la permettre loolu. non je pense outil yàgg na outil bi dafa fu ma jaar la jaar jaar la sama jaar jaar la d' accord jomboon na ci man parce que déjà éducation de base bi ma amee kër ga moo ma permettre déjà ma mun a euh, am xam luy muñ. d' loolu la sama parent yi doon euh, di ma jàngal sama yaay dafa noon ne boo dundee ak jaan ci pax. defal lépp pour que mu bañ la ja mu bañ la mot mu bañ la màcc. mais loolu dina metti de. <laughs> loolu dina metti xam nga loolu metti na c'est-à-dire que war nga muñal nit yi suufalal sa bopp pour que effectivement nga mun a ànd ak ñëpp daal. donc ce qui bu ma fi ñëwee ah dama toog xool nit yi lu ñuy def naka la ak nan la donc ma commencé insérer wu ci biir mais jaar-jaar yooyu yëpp tamit en dehors de euh, kër ga. Mhm. man damaa am wërsëg boo xam ne école bu ma jàngee sixième ba terminal mooy ni ñuy wax école. Euh, Euh, Sacré Cœur kooku ñëpp xam nañ ko fa. e vraiment ñu ma ñu ma frères yi ma jàngal foofu tamit jox nañ ma lu bëri ki ñoom xam nga nit soo ko pour nga mën koo jox yenn yi foog nga bëgg ko te ñooñu vraiment maa ngi leen di remercier encore fii dañ ma mës a bëgg. parce que xam nga nit boo ko gisee mu nekk xale ba mu muy def thèse d'accord nga ànd ak moom koo xam nga xam nga ko mun nga ko gën nga ko xam sax yenn saa yi waajuram parce que moom nga xale boobu danga nga ko yoree ki sa ki sa école d' de huit heures du matin jusqu'à dix sept heures dix huit heures parents mi dañ la ko confier donc xam nga ñooñu pratiquement mun nañu ne ñooñu sa deuxième parent quoi te foofu lépp laa fa jàng lépp laa fa def <laughs> def naa fa euh, mouvement d' action catholique Kër Vaillant def naa fa louveteau def naa fa scout def naa fa routier def naa fa chef louveteau def naa fa chef scout def naa fa chef de groupe ba mujjee nekk commissaire adjoint de district donc finalement lu ne jaar naa fa def naa fa théâtre def naa fa basket def naa fa athlétisme xam nga foofu finalement bu ñu nekkoon vacances sax bu sama copain yi ñëw seet sama vacances. Euh, kër ga koñ ba waa koñ ba. suma yaay def na ne dam leen Sacré Cœur mu nga fa <laughs> effectivement bu ñu ñëwee Sacré Cœur fekk ma moo doon suma ñaareel kër donc xam nga jàngat boobu loolu yëpp ak suñu ñun xam nga sénégalais yi ñun dañu mun a masla dañu mun a muñal hmm. nit donc ce qui fait que bu ma ñëwee fii ah metti woon na on n'avait pas les mêmes codes. mais finalement ah au bout d'une année ñafe rek ma passé suma concours internat réussir ko. te nekkul concours bu facile ci France. concours ah, interne merci non non non non non non <laughs> jombul de <laughs> ah am na ñoo xam ne def nañ ko plusieurs fois jaaruñu de. donc c'est pas lan ngay wax lan ngay wax étudiants sénégalais yi nga xamante ne peut-être même si Sénégal parce que Sénégal am na concours interne. tout à fait te boobu aussi yombul ci Sénégal yombul mais man def naa ko te échoué naa. bu Sénégal après nga ñëw jàll bu France. ma ñëw jàll loolu mooy wane ne docteur donc boo amee échec. mën ngay jugaat ngay continuer toujours waaye kooku man la gis nga gis nga ça ça te forme. waaw ça te ma yàgg du ma dugg ci histoire u internat bu Sénégal parce que boobu benn histoire la. mais comme yàlla baax na comme fu mu ne nii moom yàlla defal na man joxal na ma ndam fii réussir naa fi alhamdulilah. mais lan nga lan mën a jox lan nga mën a jox comme conseil ko xam ne tey ah. ngi def médecine mhm. ba pare bëgg ci réussir aussi ci jàng bi ci attitude yu mu war a am lan nga ko war a mun waa vraiment man daal bu nekk Sénégal wala voilà voilà man awma ci benn lu ma la ci wax mooy il faut persévérance gëm sa bopp loolu c'est le plus important gëm sa bopp persévérance soo ko amee rek moom doo am benn problème métti na loo gis dafa métti ci àdduna Mhm. su yomboon mais tout day day day nekk loo xam ne dafa yomb trop dina yomb trop donc plus muy metti plus muy intéressant léegi nag les données on changé parce que ñun à l'époque di nga mën a ñëw di nga mën a ñëw waxtaan euh, euh, inscrire après def par exemple comme ñun nu ñu def ñu bare noonu ils avaient pu le faire mais fii léegi c'est compliqué loolu dañ ko bañ parce que majeure partie de étudiants yi ñu ngi ñëwoon fii en Afrique jugee Afrique wala jugee bitim réew jugee feneen dañuy ñëw euh, même suñu passé par concours bi def ay stage toog fi donc loolu ñoom dañ ko bañoon mais finalement bah gis nañu que cent médecins étrangers yi du ñu mën a dem. hôpitaux yi am ay déserts médicaux aussi ah. waaw ay zones yoo xam ne amul ay médecins. tout à am na zone yu bëri yu amul médecin mais bon lu ñu def. après une ville comme Marseille moom yaa amul problème pour médecin yi. <laughs> waaw médecin yi <laughs> macha allah médecin yi bari nañ fi trop. voilà donc fii moom. vraiment amuñu problème boobu mais nag ah ñefe la foog nga ñefe bëgg vraiment gëm sa bopp xam loo bëgg daal. waaw xam loo bëgg man ma xamoon lu mu bëgg man dama xamoon dama ñëwoon fii pour jàng pour am benn spécialité waaw dëgg la nag mënoon naa ñibi moo naa war a ñibbi donc. waaw fii am naa fi macha allah am nañ fi ñetti cabinet. ok accord donc euh, ñaar fii Marseille benn à La donc euh, Ciotat si bi la ba léegi Ciotat waaw c'est une ville qui est à côté. donc parce que ñun lu ñu intéressé man ak sama associé yi lu ñu intéressé mooy ñu dem vers la population. dem leen seeti ñoo xam ne parce que yenn saa yi tamit fii ñun da ngay xool suñu spécialité balaa nga mun a am rendez-vous quatre wala six mois voilà donc ce qui fait que moo tax ma jël ay associé parce que man kenn laa woon pendant une bonne dizaine d'années cabinet boo xam ne premier cabinet maa ko jënd moom maa maa ko donc après ma indi ay yeneen ñaari xale yoo xam ne ñëw jàppale ma loolu nag nañu commencé ubbi yeneen cabinet donc bu ma gisee ne que ma delee d' attente yi commencé na ëpp 6 mois ma ne lii mënul woy voilà donc ma woo ay yeneen xale ñu bëgg ma jàppale ay tubaab nañu. da nga ne ko xam da nga fi nekk di waaw waaw waaw damay dëkk ci bi damay ma je crée de l' emploi. je crée de l' emploi dans ce pays là. dañu waxante dëgg dama ni faj mais maa ngi créer emploi tamit ci dëkk bi donc ça c' est très important. Mm, mm. voilà damay créer emploi dëkk bi tamit. donc j'ai deux am naa ñetti secrétaire <laughs> parce que cabinet bu nekk am na secrétaire am d'accord ak effectivement bah on fait des choses donc ku am am euh, benn kër mu am emploi donc yaa tamit les am na femme de ménage yu toppatoo loolu am na ay ñi ñëw ñi nga xam ne dañuy toppatoo climatisation bi mm. am na ñoo xam ne ñu ngi toppatoo entretien jardin bi yooyu yëpp da nga leen di ay ay parce que suñu cabinet c'est toujours en rez jardin le plus souvent donc ce qui veut dire que loolu emploi la loolu emploi la. docteur ñu ñëw si beneen aspect. Mhm. da ngay def politique. <laughs> waaw ah mais yow yaay wax damay def politique man politique ma de <laughs> man damay dimbali askan bi léegi léegi. boo jël beneen sens bi. waaw da xam ne da nga engagé. waaw ah ci domaine public bi ah, ne da ngay def politique. Mhm. joxuma ko connotation bi nga xam ne mhm. ne da ngay servir en fait. waaw dëgg ah, la sens boobu laa jox. Euh, mot politique bi maanaam. man da ngay servir. ci cité bi di jox di def li ñu wax don de soi. dëgg la di jël sa compétence ah ah mettre ko à la disposition de la population de de Marseille. dëgg la donc da nga engagé on va dire. waaw man bon après engagement boo xoolee bu baax wax naa ko sànq xam nga sa nit sa jaar fooy jaar sa mucc foofu rek la parce que loolu ma la loolu la ma yàlla jox comme comme euh, mission. mission la pour man espèce de mission la donc man lu ma ci intéressé mooy dimbali askan gi servir askan gi et non pas se servir de askan gi. Mhm. xam nga nit yi dañ ñëw en politique pour et non pas servir le citoyen. mais fii même boo ko bëggoon def sax dina métti parce que. non tellement les dafay am boo xamante ne même te servir des deniers publics dina am ay cas d' exception bien sûr. waaw mais du nekk lu facile des fois. du nekk lu yomb parce que man nit ki yaay xam fan ngay teg say tànk ak fan ngay teg say loxo man daal foo xam ne moom loo xam ne euh, ni ñu ko loi bi daf ko tere man du ngeen ma ci fekk de <laughs> kooku man ala kulli yàlla xanaa ngeen drogué ma wala ngeen piqué ma ma. sama sama yuur jaxasoo mais su nekkee man rek man ak nit askan ak diggante yàlla du ma dëgg ci loolu fii nag ci dëkk bi fii moom Marseille moom ah ñun nag moom on est les on est ay spécialiste nañ ci loolu parti politique yu nekk fii ñoom yàgg nañu ci ay njuuj njaaj hmm. ay dimbali nii su ma la di euh, votel ma su ma soo soo ma votelee la utal appartement su ma la votelee ma ab logement man campagne bi ma def yëpp durant un mois lu ma leen wax dafa leer man amuma moyen utal kenn liggéey amuma moyen utal kenn logement nit yi nañ jaaxle ah kon yow la ñuy wax ma leen man lu ma leen wax mooy lu ma intéressé mooy seen doom yi naka nañuy réy mun a réussir ëllëg parce que fii ki dëkk bi majeure partie bi de waxuma on a des ingénieurs on a des médecins on a des avocats am nañu lépp mm. mais majeure partie boo xoolee ñu euh, ñooñu dañuy soit ñu nekk femme de ménage wala ñu nekk ay. agent de sécurité agent de sécurité. <laughs> bon c'est vrai que bari na ci sunu mbokk yi nag ñoo xam ne. voilà man dalul dama ci sonn. Hmm. d'accord lu tax parce que affaire bi dès le départ la. Hmm. depuis njëlbeen la parce que yenn saa yi da ngay gis xale boo xam ne. Hmm. mu ngi nekk par exemple troisième. mu moyen noonu rek ñu ne ko da ngay def dem def def CAP wala nga def benn BTS. donc te suñu euh, orienté la benn orientation boo xam ne yow léegi yow xam nga pratiquement ci benn voie de garage ngay dem. loolu c'est pas normal. génne la ci enseignement général bi par exemple. voilà waxuma enseignement général mooy régler problème wu lépp. Mhm. d'accord mais dafa jaaduwul nit ki jox ko may ko jox ko seconde chance jox ko capacité yoo xam ne moom dana mun a permettre éventuellement mu épanouir ci dara mais tout de ñu teg la benn garde garage léegi soo buggee dem def ay stage wala nga bu ut liggéey nañu ne ah yow. CAP nga wala nga am BTS. waaw ñii nekk fii maîtrisard nekk fii doctorat nekk fii jël ñu leen. donc yow li lay jox ñu la ah ñun de mën nañu la jël fii comme euh, ni ñu koy waxee agent sécurité yow fu mu nee nii nga amee ay njaboot looy def nga ne xaaral ma jël agent sécurité donc kooku dafa laaj ñu préparer ko te kooku politiciens yi ñoo ko war a dugal seen bopp. man loolu nag lay mooy sama xeex. moom ngay def si bopp xale yi nga xamante ne. voilà ay jóge ci ay cosaan yu ay minorité bu mu nee waxee voilà parce que tubaab yi moom c'est sûr que nii. Ah, waaw man minorité yi euh, ñu ngi gérer seen bopp. voilà voilà mais xam naa doomu immigré la ñu on va dire. mu ngoog la majeure partie doomu immigré nañ donc kooku man nag moom moom mooy sama xeex loolu rek loolu la moom su nekkee loolu ngay jox nga may jox comme définition politicien nangu na. d'accord waaw boobu moom nangu naa ko bëgg naa nga jox ma sax ndam li <laughs> waaw parce que moom loolu mooy sama xeex euh. pour que ñun mii minorité bi ñu mën ñu gis nekk ci instance de décision yi yenn saa yi da ngay toog nga war a nga def ay demande de logement kenn du toppatoo say mbokk yi lu tax parce que kenn nekkul fii pour défendre seen dossier ñoom nag ñuy régler seen problème entre ñoom ñun nag ñu ngi teg ci ay quartiers yoo xam ne quartiers yu bon toog dafa jaadu jaaduwul donc à partir de ce moment là man nag kooku moom léegi nag ah moo tax ma ne nit yi daal suñ ma defee confiance man su ma wàllu bopp comme toppatoo naa sama bopp sama njaboot ba ñu tekki man léegi xanaa mun naa dimbali ñeneen comme ça ñu tekki wala gën ma gën ma gën ma mën ma dépasser sax. gën la dominer. na mais mais je rappelle déjà que ni euh, conseiller métropolitain. loolu nan la na loolu aussi c'est sa engagement politique la ñëwee. waaw effectivement pourtant bokkuma ci benn parti politique de <laughs> man société civile laa bokk c'est que finalement man bokkoon naa PS ñaari at laa fa def après. vingt ans après ma dem UDI mais six mois laa fa def. parce que je me suis ñii daal dañu bëgg a ma leen di dimbali di leen la samay vois yi nit yi ma xam ah askan yi ak yooyu mais su s'il faut maintenant ñu ñu ñu teg la ci kanam duñu la. teg investir la duñu investir donc su boobaa may leen man pare naa ci yéen voilà parce que nit da ngay gëm sa bopp. xam sa bopp xam foo jugee. et effectivement léegi xam lu lan moo lan moo kii man suma suma kii yëpp mooy défendre nit yi léegi pour yegg si pour ci euh, kii élection ma nekkee au niveau municipal euh, au niveau de la métropole métropole ça n'a pas été compliqué parce que man j'ai envie de dire que plus ngay génn ci parti politique yi plus ñu la wër donc nañ noonu nañ ma wëree ñu ne ma ndax bëgguloo bokk ci ki ma ne ah ayca nañu dem donc bu ñu élire bu ñu gagné élection yi ci suma secteur bon ñu ne ma léegi à ce moment là foog ñu jox jox la délégation santé bi au niveau du secteur may leen a ah, kooku moom y' a pas de problème donc et après bu ñu ñëwee ci élection pour métropole yi comme j'étais très bien placé présidente métropole bi ne ma yow waa foog ma nommer le vice président je pense que kooku ki kii la quoi espèce bu vraiment fierté la. pour ñun africains yi parce que ils ont vu que finalement ba nit ki ah am noo xam ne am na fu mu jaar. ak nu mu mel mun nañ ko wóolu. c'est vrai que d'aucuns vont se dire waaw mais parti bu ko investir les républicains la mais man bokkuma ci républicain bokkuma modem bokkuma idée yi bokkuma fenn. fii moom ku fi tappee internet Martin Martin Carvalho parti politique résultat zéro la lay bind man ma ci benn parti politique. d'accord man société civile laa nit yi ñëw ma ñëw jël si wóolu ma xool peut-être samay compétence ak lan laa mun a apporter à ce moment là ma nekk ma nekk ma nekk ak ñoom. docteur waaw yaa ngi xalaat présidentiel yi kon. président France <laughs> France. waaw déet man de yaakaar naa France préparé guñu pour am président nit ku ñuul. xëj na di des de et des siècles xoolal États-Unis États-Unis depuis kañ nañu nañu nañu sancoo euh, États-Unis ñaata siècle la il y même pas longtemps qu'on a ki nañu am benn président bu ñu tuddoo euh, Barack Obama préparé guñu déjà yaa ngi di gis petit à petit ay nit ku ñuul <laughs> loolu suma combat la léegi man xëy na du nekk man mais génération future yi bu ñu gisee nekk am nañu benn bu ñu tuddee Martin Carvalho boo xam ne mu ngi ci mu ngi présenté wu donc léegi xëy na nañ ne mu ne ah mun tam mun nañ góorgóorlu ah man kooku asuma def naa suma suma liggéey mën naa dee tëdd nelaw parce que xam naa suma warugal suma lu ma war def daal def naa ko léegi les autres suivants suivront léegi moom bés ko yàlla bëggee tudd pour mu am benn sénégalais wala benn africain bu nekk président de la république de France dana jafe de du léegi de mais mën nañ ci góorgóorlu. mën nañ ci góorgóorlu. waaw mais waaw du coup li nga yëngu yëpp nan ngay impacté ci Sénégal nag. waaw mais Sénégal man xam nga Sénégal sama dëkk la quoi vraiment fa laa fola fa laa de pratiquement yëpp bien que aujourd'hui <laughs> fii laa gën a yàgg que Sénégal d'accord mais ah maa ngi yëngu sama domaine euh, spécialité gis nga en depuis ma nekkee Marseille nag mais balaa loolu sax parce que bu ngeen bu ñu nekkee ay scout ak yooyu. Mm. on a toujours aidé ñu ko waxee population sénégalaise bi. Mm. Euh, quand en faisant des constructions. de latrine ak yooyu mais kooku danga koy jàng ay jàngat la donc en aidant les villageois donc en créant même des ni ñu koy waxee euh, en creusant des puits pour que ni yi am kii donc xam nga kooku boo koy def bu nga nekkee xale ba léegi à ce du nekk loo xam ne day difficile pour yow. et donc après man bu ma nekkee étudiant en médecine Sénégal euh, avec ndeysaan mon cousin le feu commandant Pierre Faye. ñoo bokkoon ci première marche pèlerinage Popenguine et. man ba bokkoon naa ci encadrement médical bi. première marche pèlerinage Popenguine d' accord ba bu may ñëw Marseille bu ma ñëwee Marseille nag ah léegi loolu mëntu ma ko mënu ma ko mëntu ma ko def donc ma ne nan laa mën a servir suma dëkk. Hmm. donc noonu laa commencé waat di def ay mission humanitaire di bu ay garab d' accord di dimbali pouponnières yi. Hmm. di dimbali certains hôpitaux yi n' est ce pas parce que xam nañu bu baax foofu Sénégal problème garab dafay am. donc euh, noonu laa defee ak certaines association yu ma créé fii hôpitaux yi ma nekkoon yëpp dam leen doon laaj ay effectivement du matériel et du garab ak ay garab comme ça ma yóbbu ko Sénégal ok chaque fois su ma doon dem dinaa mun am pratiquement une tonne de médicaments yoo xam ne ak matériel dama ko yóbbu hôpitaux Sénégal yi donc mosuma fàtte fu ma jugee parce que nit dañu ne balaa ngay xam foo jëm fàttaliku foo jugee donc man Sénégal mosuma ko fàtte et pour preuve en 2011 ñëpp xam nañu ne que fu ma yëngoo ci affaire diabète la te hôpital Abbas Ndao balaa may juddu sax existe ne woon. affaire diabétologie qui était le seul centre. et en 2011 maa créé benn centre hôpital Saint-Jean-de-Dieu ci affaire diabète. bu nekk Thiès ah. Thiès. te su jàll àndee fii ak euh, année prochaine am na beneen bu ñuy créé ci beneen centre bu ñuy créé ci hôpital Ziguinchor su jàll àndee. ok budget bi réglé nañ ko ba pare. mais du suma xaalis de xaalisu xaalisu laboratoire pharmaceutique français yi la. ñu comprendre effectivement lan laa bëgg a def ci Sénégal su doon sama sago su ma ko mënoon chaque région du Sénégal dinañ ci tabax benn centre diabétique. pourquoi parce que nit ki accessibilité soins au Sénégal moo posé problème. Mm-hmm. da ngay gis nit boo xam ne day jugee Kédougou wala Tambacounda war a ñëw faju ji Dakar mu nekk diabétique dina rang-rang ci transport yi yegg si. hôpital ñu ne ko médecin bi dem na parce que médecin bi tam day am heure yu muy liggéey. Ah. mu war a toog fan lay fanaan su amul mbokk est-ce que dina am euh, xaalis pour fay hôtel d'accord su fayul hôtel mu ngi fan dina tëdd ci booru tali bi ci wetu hôpital bi di xaar ëllëg quatre heures du matin mu war a jug comme ça mu jënd ticket pour dugg pour dugg pour pour gis médecin hôpital. Hmm. mais kooku man moo ko xalaatee xalaatuma ko woon mais moo ko xalaatee ma ne lii mënul wëy. munul woy bu ko gouvernement bi deful dinaa ko def loolu moo tax maam engagement boobu d'accord don de soi bi pour askan gi voilà man fa laa ko jëlee du tey nag yàgg na bu ma nekkee xale la parce que dañ ko dugal suñu bopp. voilà ñoo xam ne ñoo ma yar ñoo ko dugal suñu bopp yow soo amee da ngay sédd comme saa ñeneen ñi mën a am voilà nga mën lañ jox voilà yàlla nag daf ma dimbali d'accord macha allah mel na ma lu ne donc léegi man su ma amee. xanaa mën naa sedd ñin. delloowaat ñeneen ñi quoi. yeneen ñeneen ñu ko. <laughs> politique Sénégal na nga ko gisee actuellement. waaye dafa doy waar de <laughs> politique Sénégal intéressé na ma trop parce que effectivement lépp ci lépp laa nekk lu xew fa maa ngi koy suivre. xam nga problème bi tamit yaakaar naa nguur. dafa neex engagé wu nga tamit politiquement ci Sénégal. ah oui oui engagé naa politiquement Sénégal maa ngi ci parti euh, PASTEF. du ma ko kooku moom maa ngi ci dugg depuis deux mille dix neuf. ok président moom bëggoon ma dugg avant ma ne ko déet. après lay dugg parce que su ma duggee léegi dañuy fa neen ama dam ci am lu ma ciy ut non non non bu ñu gagné élection yi fii Marseille fii maa ma maa doon responsable fii à Marseille fii on a battu le président Macky Sall tous les bureaux de vote on les a on a gagné liggéey bu ñu def ci terrain bi rek ak booy yi fii donc kooku moom ñëpp xam nañ ko d'accord te kooku moom du tax ma changé benn yoon pourquoi parce que dafa am loo xam ne gis-gis boo xam ne président Sonko am na ko suñu gis-gis ànd. bés bu dévier nag ma bakku fa <laughs> waaw kooku moom c'est clair et net voilà bés bu dévier rek ma bakku fa. mais docteur. waaw su ma nee docteur Carvalho. Hmm. ministre de la santé ci Sénégal la mooy sa première réforme. yee déet bàyyi noonu. kooku mais su ma waxoon loolu tey mooy doon sa première réforme ministre de la santé. ministre de la santé. waaw <laughs> première réforme dina métti de xam nga fan lay commencé. formation professionnelle ak conscientisation professionnelle c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as un am titre infirmier wala aide-soignant. que nga foog ne affaire bi jeex na fa non man su ma nekkoon ministre de la santé dinañ sonn lu tax parce que su ma quelque du ma nekk nit boo xam ne damay du may damay teel nelaw mais damay teel a yeewu <laughs> man mun naa wër hôpitaux yi d'accord xaaji guddi dem seeti ndax gars yi ñu ngi joob ah ku joobul ma relevé la amul doomu sëriñ bi wala sëtu monseigneur rek kooku amul ci man waaw parce que liggéey moom surtout lu euh, euh, bakkanu askan gi amul bu la boo fa nekkee da nga ko war a def mu normal voilà man kooku première réforme ça va être ça deuxième réforme nag ah xool nu ñuy restructurer opito yi parce que gis nga ministre un ministre la santé wala gouvernement santé war na ci dugal au moins quinze à vingt pour cent de son budget pareil pour éducation pareil pour l'emploi pareil pour industrie lu tax moo loolu parce que nit su amul santé du mën a dem uti liggéey mais pour mu am santé foog mu xam ne ñoo xam ne mu ñoom ñooy toppatoo mbirum santé bi soit vraiment le fasse vraiment avec amour et passion muy benn ñaar ñu tegal leen des euh, des des des du matériel yoo xam ne adéquat d'accord pour ñu mën a faj askan gi quoi que normal un pays comme le Sénégal boo xam ne amoon naa pas les moyens qu'on se permette que les gens balaa ñu leen di laal ñu jox leen laaj leen xaalis pour ñu xoolaat leen di ketal ci Sénégal. pour ñu fayu pour ñu fayu kooku dafa normal. donc kooku ñu koy recevoir fi ay des yoo xam ne ki nu envoient des documents des trucs ne kii euh, démb rek maa ngi koy recevoir benn d' accord ki sutura nga yónnee sa sa participation. donc finalement war nañu xoolaat suñu bopp la santé c' est le truc le plus important d' accord kooku ñu ko caaxaane muy santé muy environnement d' accord muy tout ce qui est agriculture d' industrie. d'accord emploi éducation éducation sax laa waroon commencé waruñu ko caaxaane au niveau du Sénégal donc mesures yooyu man kooku ce serait vraiment radical donc docteur Martin Carvalho ministre de la santé ci foofu ngay commencé. <laughs> docteur sama sama laaj bi nga xamante ne mooy laaj bi mujj. waaw ban conseil ngay jox koo xamante ne tey dafa am volonté mobilité internationale notamment en France pour mu mën a réussir ci mobilité muy France ci Canada en tout cas dès l'instant que ni yaa ngi génn ci Sénégal. di dem mm-hmm. comme réew yu mel nii. Mm-hmm. lan pour yow moo war a nekk clé yi nga xamante ne mooy permettre nit kooku mu réussir mobilité am. ko ni ko réussiree ba a nekk royukaay ci moom. d'accord d'abord dans un premier temps nga d'abord tekkalal tek da nga foog nga tekki nekk foog nit yi ràññaatle la. Mhm. te pour ñu mën leen ràññaatle man dafa yomb ci man parce que sama patients yi ñooy wax. Mhm. donc yow soo nekkee par exemple ngay liggéey ci domaine informatique wala fooy nekk liggéeyal de façon voilà nga mën a changer cap nga nekk quelqu'un de très sérieux ba nit yi ñiy liggéey ak yow ne ah waa ji de moom vraiment amuñu lu ñu ko wax loolu mooy première étape bi donc le sérieux mhm. boo demee ba léegi nag li ci mën la ràññee. léegi sa compétence yi ci peux les mettre au service de la population ou de ton pays localement ou éventuellement au retour au pays natal comme on dit mais loolu dafa laaj tamit nga am benn ligne de conduite jub boo xam ne kenn mënu la ci la mënu la ci wax mënuñu ne kii ay dafay njuuj njaaj affaire xaalis xaalis mënuñu ne kii wax na détourné de fii ak kooku moom ah suma wàllu suma wàllu suma wàllu bopp de kenn mënu ko wax fii ci àdduna donc à partir de ce moment là xam nga boo yegsee ba taxaw ne ah nit kii de moom amuñu ñu ko mën a wax nit nag du parfait mais au moins ci sa waarul liggéey d'accord que c'est vraiment nit ñi ràññeet la ne vraiment waa ji de ci au niveau professionnel on a rien à lui reprocher te tamit foo dëkk ubbil fa sa bopp ubbil fa nit yi nga booloo ak ñoom d'accord et lu ci des nag yàlla ko yore hmm. mun nga bëgg def loo bëgg yàlla dafay joxe fii ci àdduna ku nekk mission man loolu ma la ma jox comme mission depuis ma nekkee xale dinaa ko doon waxtaanee ak suma ay copains suñu groupe de copains suñu waxtaanee ñu ne ma yow chaque fois da ñu ne yàlla daf ñu jox mission yow lan mooy sa mission man sama mission mooy dimbali nit yi <laughs> ñu reetaan ñu ne ma yow amoo mission <laughs> mais leen loolu mooy sama mission véritable mooy loolu. donc et puis bon maa ngi ko doon taaxaane à 15 loolu finalement yàlla wala euh, mu ngi ma ci indiwaat léegi. ba ci politique bi pour dimbali tamit askan gi rek la. voilà sama mbokk yi pour ñu gis que vraiment kii fu mu jugee yegg ci na ba fii. finalement mën na ci réussir donc suñu doom yi nañu ne ah suñu suñu rombee ci euh, euh, Marseille gis affiche ñu gis ah tonton Martin gis nañ ko de comment mu ngi ci euh, mu ngi à côté tubaab yi mais bon mais moom xam na lu mu bëgg ah moom xam na lu tax muy muy def lii ah. pour ñun la koy def moom quoi nañuy jug jàppale ko man daal loolu mooy suma loolu su nekkee loolu comme lu mu la ko waxee sànq mooy définition politique boobu nangu naa ko bëgg naa jël ndam bi. en tout cas kontaan naa Mar docteur Martin Carvalho mooy sa kàddu yu mujj di ko. <laughs> ah maa ngi nuyu sa auditeurs yëpp di leen sant di leen gërëm di la gërëm yow tamit ak euh, sa collaboratrice bi Fatou. ngeen jugee ba Lyon ñëw seet si ma fii Marseille moom ngeen ko bañ def wala ñu defoon ko par exemple sax par vidéo mais vraiment maa ngi jégalu di leen déplacé wuloo ci situation sanitaire bu ñu nekk nii. mais bon tey nag moom euh, Marseille i fait pas très beau <laughs> habituellement <laughs> il fait très très beau waroon ko def semaine dernière xëy na. la vie du soleil mais comme yàlla noonu la ko tuddee maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp et puis di leen sant ba beneen ah xëy na su su ma amee ndam xëy na di nga ñëwaat. mais bien sûr <laughs> docteur maa ngi la koy ñaanal. ah vraiment j'espère que ni di nga gagné yaag sa ah, ci élection a am ci euh, ci suba ah, le 19 le juin maa ngi rappelé ne émission bi tey ñu ngi ci samedi le 20. la ma nekkoon tey talent diaspora ma ñëw Marseille mu nekk benn ville mythique ma ñëwoon ci wetu vieux port pour rencontrer le docteur Martin Carvalho nga xamante ne day liggéey fi si médecine. monsieur dafa nekk ma leen di jox dig daje ci samedi prochain si sama beneen contenu di leen wax ne su dee kàddu yi nekk na lu leen neex man ak docteur ngeen partagé ko ba kenn ku ne ci Sénégal kenn ku ne ci Afrique mais aussi kenn ku ne ci biir Marseille di mën di ci jot jërë ngeen jëf ci seetaan bi asalaamaaleykum wa rahmatullah